asalaamaaleykum waa Sénégal ci lu gàtt rek ma dellu si interpeller leen alerter waat leen bi ki Sall génnee ne du bokk ci élection 2024 Sénégal yëpp dañu am yaakaar ñëpp félicité ko bu ngeen fàttalikoo ma ne nañu tey ndax am na certainement lu mu denc loolu mu denc mel na ne taxaw na pour génne ko dañu doon wax. ne am na lu muy rumandaat Macky Sall dafa renoncer ci candidature waaye musul jële xelam ci ne Sénégal moom daf ko war a téyal boppam moo tax ci lundi bi assemblée nationale dañu leen woo waxuma sax lu jëm ci mbiri parrainage wala ñu jëm ci mbiri mm, Karim Wade ak Khalifa ñu bokk loolu mooy li normal mais li mu ci dëxëñ moo am solo te li mu doon ruumandaat yépp ci loolu la jëm moom Macky Sall jaxasewaat constitution bi tripatouiller constitution bi ngir tas assemblée nationale parce que yéeneem moom Macky Sall mooy élection deux mille vingt quatre yi amaana du nekk candidat président waaye loxoom du ci mus a jëg te ci loolu nag la nekk di def fi mu toll nii njuuj njaaj waxoon na ne bàyyi na njuuj njaaj mais tey la gën a sax ci njuuj njaaj way way njuuj njaaj googu na ko jëmale ci nu ñu mën a wàññee diw gi wàññi suukar bi wàññi ceeb bi wàññi jafe-jafe yi ñi ñuy dund waaye Macky Sall lenn rek moo ko intéressé nu ñu mën a def bay njuuj njaaj ci wàllu politique loolu vous les Sénégalais vous êtes interpellés mais ki nga xam ne ñoom la ñu gën a bàyyi xel ci njuuj njaaj googu Macky Sall war di def mooy député yu opposition bi principalement waa PDS ak waa taxawu Sénégal bu Khalifa Sall seeni candidat bok ci élection yi lolou la ñu mus ñaan te lolou la ñu leen di souhaité waaye bu leen and mukk ci luy néewal doole constitution bu Sénégal parce que Macky Sall bu ngeen ko mayee mu mën a tas assemblée nationale bi yéeneem moom Macky Sall moy bok ci élection yi ñew parce que dafa bëgg coupler présidentielle ak élection législative bu ko défé mom mu jité liste coalition Benno Bokk yakar taxaw nek ci bir lang gi sénégalais yi djok réveillez-vous bu vous may Macky possibilité mu meuna indi geneen vous jaxé ci xelu nit mais mon Macky na xamné ne li Russie la mën ci Poutine ak Medvedev non sénégalais yi duñu ay sénégalais amuñu état d'esprit té paré wuñu ci may ko mom Macky Sall limu bëgg mu mën ko def ci réew sénégalais yi danañ taxaw jakarlok mom jatu ni ak lumu indi ci njublang sénégalais yi dinañ la xaar ci urne bi té bu boba fiñu jaaroon ak yow ci local yi jaar ko ak yow ci législative yi ñu dana nu fa jaarat ak yow ba do am benn ndam ci yene bi nga xamne am nga ko sénégal tey jii démocratie Sénégal boobu ñu amoon yaakaar te bi moom Macky sàll ne dellu na ginnaaw ci candidature nit ñi di taañaañal nit ñi di ko félicité man biroon na ma ni baadoo la bu séenee gàcce faaw mu yegg ca te loolu nag dafa interpeller kenn ku nekk ci yéen ngir lii mu nekk di def jàpp nit ñi tëj kaso ku wax ñu ne la ràpp tëj ci kaso bi plus de 600 détenus politiques jubluwuñ ci lenn lu sénégalais mais que Macky Sall sache que les sénégalais dinañu taxaw nous défendre suñu constitution mais dinañu fexé ba mom limu bëgg muy ngam gogo du vive la démocratie vive le Sénégal